bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi hada l yawm wa xayra ma baad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 ñaan jàmm ci réew mi ak réew bi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawféex sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu fan yi nu génn ay bis yi nu génn ak yi ko jiitu mi ngi nekkoon ci tomb yooy mu ngi nekk diggante éducation ak diggante société yar beeg pénc mi tey dañu ñëw ci tomb beneen bu tudd alkasbu alkasbu bu mooy fàggu fàggu nag bu ko lislaam waxee da cay benn mu ne alxalaal walla mu ne alxaraam waaw fàggu lu dagan walla fàggu lu xaraam fàggu mooy li li nit di def ba am li nit di def ba am ba am alal ba am xaalis ba am ndomba tànk yooyu lañ tuddee fàggu arab di ko wax alkasbu am na xalaal am na xaraam waaw loolu la suñ tomb tey bëgg jëm walla suñu tomb fan yi incha allah alkasbu muy fàggu bu nu delloo ginnaaw lu sori day gis na doomu aadama sunu borom a ko bind def ko xalifa fil ard sant ko mu dundal suuf waaye sant ko muy sàmmoonteeg lu tax nit mën a nekk ci kaw suuf ilaa mi saa ba bis biñ ci taxaw loolu moo tax ki bëgg a taxawee fonction boobu di nit war na ci moom kon muy sàkk wërsëg fii ak fee ndax dund gi lii tax mu dem wërsëg def ca bokk te itam am loo añe wala loo reere mbaa loo ndékkee xëy dem ca sab liggéey loolu lum ci dolli nekk farata waaye it nag taxaw taxawaay bu mat sëkk laxas ndiggam lu ma sëkk ba tukki boobu nga xam ne ci la nekk te mooy tukki bu àdduna rixla fi hasil aya mu fexe ba li mu yóbbuloo ci tukki boobu nekk lu dagan bu fekkee fexe na ba li muy aña dagan li muy reere dagan li muy ndékkee dagan li muy sol dagan li muy naan dagan da ci amee ridallahi ngërëmul yàlla waaye yooyu bu ci tappale duggee day indi merum yàlla kuy lijjanti lu mu añe mën naa nax ay nit añ kuy lijjanti lum reere mën naa nax ay nit reer kuy lu lum ndékkee mën naa nax nit ndékki nax-nax yooyu day jur merum yàlla subhaanahu wa moo tax alkasbul xalaal eh, moo war a nekk sunu tomb di des ci weer bi incha allah te it eh, wërsëg dafay def jeexental bu mag ci doxinu dund gi ndax mën naa jur ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala mën naa juru meram kon ma ñëw ci alkasbul xalaal bu ñu nee alkasbul xalaal ñu ngi ci jublul ni doomu aadamay def ba am lum yóbbu këram alkasbul xalaal ni doomu aadamay def ba am lu mu fay luyaas bu amul kër ni doomu aadamay def ba am kër gum dëkkee ni doomu aadamay def ba am lum sol ay doomam sol kook njabootam ni doomu aadamay def ba mu ndékki jote ñu ne kaay leen ñu ndékki kaay ñu añ kaay ñu reer ni doomu aadamay def ba leeg lekk am na ñooñ am lu ñu denc lu mu tuuti tuuti loolu dafa am ay yoon yoo xam ne dan koo yoonal daganal ko ne yoon wii jaadu na ku ci jaar loo am lew na dagan na te bu boolee lew ak dagan su ki ko am tëddee bàmmeelam ay mellantaan du ko fa fekk ay yoo du ko fa fekk waxuma laa seen mag yi jiit yéeg jaan yi loolu nag des koy gëm des koy gëm ba nit ki du dugg ci loo xam ne xayru mashru maanaam fii kenn waxut ñu wute fi moom mu dem di fa wute waaw koo xam ne kii du liggéey ba noppi bëgg am loolu it am réew léeg-léeg ngis ñoo xam ne bu ñuy di liggéey ñoom duñu liggéey waaye bu ñu liggéey ba noppi ñu fexee nangu nañ liggéey léeg-léeg ñu agressé la jël la nga am léeg-léeg ñu sàcc la léeg-léeg ñu nax la waaw escroquerie yi def naa lañ koy wax yooyu yëpp dafay am ci pénc nga xam ne njiiti pénc ma ñoo war a taxaw téye ci loxo loxoy ñooñu ku fi lijjanti xaalis ñu fexe ba duutoo ko defati ku sàcc xaalis waxi noppi moo tax lislaam ci wàllu googu ka bëgg a liggéey sàcc bu sàccee dañuy dagg loxob ndeyjoor ba bu sàccaatee ñu dagg loxo tànku càmmooñ ba bu sàccaatee ñu dagg loxo góos ba te bàyyi ko mu dem duutul sàccati waaye fi ne boo ko wax suñu penc mi droit de l'homme ne la non sàcc jarul dagg loxo maanaam ne yàlla li nga wax du noonu sàcc jarul dagg loxo ah dafa garaaw sax nag dagg loxo waaw moo tax nit ñi nga gis ku ñemee sàcc cent mille francs am ku ñëw mën a sàcc cinq cent mille francs am ku ñëw mën a sàcc un million léegi milliard a xew am ku mën a ñëw jël ab milliard milliard waaw Kouthia nee na <laughs> Kouthia yàlla na ko yàlla yokk wér Kouthia nee na ab milliard buñ ko doon lal fii jëm Cees di lal par dix mille <laughs> xaw nu mu ko ci waxee ci rek waaye milliard bëri na lool Kouthia nee na milliard na waaw ngóor suus nekk <laughs> ca bi rek tubarkàlla waaye milliard nit ne ko donget ci kees te dara du ko ca fekk yenn saa yi bu dee suñu penc mi bu fa ëppee nag ci ngay gën a noppalu moom waaw cinq milliards vingt milliards trente milliards moom foofu daa mel ni ci ngay gën a noppaloo ndax dootuñu wax ci sàcc na baat bi dañ koy daw dafa détourné la ñuy wax rek waaw walla walla moo tax mbokk yi e, dund gi ku ci bëgg aw yiw te noppalu dangay fexe bay fàggu lu lew bu ko sa njaboot lekkee boo leen waxee ñu déggal la waaye boo faggoot lu leew xanaa safaan ba doo am ku la déggal ci say njaboot déedéet tey léeg-léeg nit fàggu loo xam ne liwut am ca kër am ca oto am cay nàngam waaye bis boo àggee ci a nafsul lawaama agsi ci màggat ci ngay am problème di fi jóg ne sama kër gi boo ko genn jaay <laughs> bu la dencee ba ñëw rek ya di jóg bu dencee ba ñëw rek ya di jóg wala nga bàyyi fi loo xam ne kenn mënu koo miraas lu tax ni ko fàggoo woon moo tax duñu ko mën a miraas ku ne jël sa wàll mën a loolu alxuraan ju ñu ne ko suratul kahf yi kere ba xaddir defaree miir ba Moussa di ko yedd Moussa di ko yedd daf na ko haza firaaxu bay nu bay nag tey la ñu tàqali ko waaye kaay ma wax li tax ma doon ma doon defar miir bi mu ne ko lu tax mu ne ko miir bi dafa am ñaari miskin walla ñaari jirim seen bàyyi dafa faatu ñu jirim waaye seen bàyyi bàyyil na leen fii alal ñun mu ne waaw mu ne alal jooju bind na ko ci aw këyit wax na leen fi mu nekk mu ne waaw mu ne su ma seetaanee miir bi ba mu yàqu alal ja day réer mu ne waaw mu ne wakkaana abuma salian seen baay daa baax ku sa baay baax lu mu la bàyyee da nga ca jot danga nga ca jariñu joxoñ bu am solo nga noonu ku sa baay baax di faggu baax di faggu lew di moytu la jël ak wagga jaane boo fi jógee loo fi bàyyi du sànku loolu la alxuraan jàngale foofu wa kaana abuhuma saalihan hmm? waaw waaw waaye tabarkàlla loo jot jël loo jot jël hmm? suñu directeur bu Omar Diouf Fall dafa doon wax ne réew mi de ku seex lu wut bari la ma ne ko lu wér nga wax de ku seex lu wut bari la nan seex lu nu ñépp mbokk yi ab jullit daa war a xër ci fàggu lu lew su ko defee lépp loo soxla ci alal mën nga koo am mais tuddee ma te te dutee masaadir xayri fi fi lu baax li jóge fa koy amee waaw fa koy ame ndax loo lekk loo naan loo sol foo dëkk nangam loolu bu fekkoon mooy sunu programme nu am ko lii programme métti bi kay mooy denc ak toj defaraat loo denc waaye loo xëy añ rek reer ndékki wax dëgg yàlla ñépp mën nañ koo am ci réew mi te su nit ko sàmmoonteeg fàggu la muy fàggu amal ko njariñ waaye amal njariñ ay bokkam te du ko lor du lori bokkam waaw du lor kenn nit loolu li ko mën a def mooy alkasbul xalaal fàggu gu lew ndax boo fàggoo fàggu mu lew mën ngaa def yiw wëne ci sa xaalis bu fàggu ga lewut sunu boroom day seexlu li nga am ko defee doo mën a def doo mën a samp daara mukk doo mën a tabax jàkk doo mën a tabax juma doo mën a dem màkk doo yóbbu kenn màkk rekk tabarkal lu tax parce que li nga yor la yàlla seexlu inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba yàlla daa am alal yoo xam daf leen a seexlu yàlla bu ci sunuy alal bokk yàlla bu ci sunuy alal bokk waaw yàlla bu ci bokk eh, yoon wi nu mën a fàggoo lu lew nag yoon yooyu kathiira wa mutanawia yoon wi ñu mën a jaar ba fàggu lu lew bari na lool yoon yu bari la yoon yu bari la ku ci nekk am na nu yàlla def ci yow loo xam ne boo ca jaaree am lu lew problème bi kay mooy nga xeeb la nga cay amee euh, xeeb barke ba cay nekk dem ca la nit ñay def nga di ko def te mënoo ko lu rek la dem ca la nit ñay def nga di ko def te mënoo ko euh, boroom xam-xam yi dañuy wax nag al asiyaaw wala al aslu fil ashyaay fil islaam huwa al ibaaha ñoom docteur Ablaye Lam ñoom Sam ñoo ko jàngalee noonu bi ñu bu ñu jàngale usul ca kuliyatu Afriqiya bu docteur Ahmed dañuy wax ne mbir yi dafa cosaanoo dagan mbir yi dafa cosaanoo dagan luñ ciy tere rek sharia day ñëw ne lii moom bàyyi leen ko fi waaw lu ñu ci tere rek sharia moo ñëw ne bàyyi leen ko fi su boobaa léeg-léeg ñu jël dara xiyaas ko ci lii de araamal nañ ko kon nag lii niroog moom war na araam waaw lii araamal nañ ko kon li moom war na xaraam mbokk yi danaa ci ñëw ku mu neex dem ci commerce muy jënd ak jaay waaye jënd ak jaay bu la ko bu la ko sa diine jàngalut mën ngaa jënde nu dul noonu mën ngaa jaaye nu dul noonu xam naa ay bind ngi ñëw incha nu ñëw ci wàllu woowu waaye jënd ak jaay te dëkk bi fi nekk nii ku amul loo def rek da ngay jàpp ne da ngaa war a dem rek jënd di jaay li nga jënd lu mu doon li ngay jaay lum doon noo koy jaaye ndax njaay mi daggan na ndax li ngay jaay daggan ndax li moom ko daggan na yooyu ñaari Omar ibn Khattab daana wax ne bu ñëwee ci marché bi ku mu fekk nga toog daf ne ndax jàng nga kitaabul bay bu yoo nga ne déedéet mu ne lallil lallil bu dee cantine mu ne tëjal bu dee bitig mu ne tëjal magasin tëjal lu tax mu ne demal jàngi njënd ak njaay boo amee diplôme nga ñëw jënd ak jaay mu ne aw ay boo ñëwoon Sénégal gi nga xam ne kullu na tijaara ñun ñëppay jënd ak jaay kër yi léegi dama yàlla baal daanaka léegi kër yëpp ay magasin lañ kër yëpp ay bitig lañ waaw école yi léegi ay bitig lañ jumaa yeeg jàkk yi léegi ay bitig lañu rekk tabarkal te bitig bi nga xam ne mu ngi ci jàkk ji ak jumaa ji <laughs> moom daal naa yëm foofu rek waaye daal commerce commerce ci yëf yi la bokk am njariñ lool am tuyaaba lool waaye am ay danger lool yu critique sax loolu benn la ci yu am solo la comme neex liggéeyee foofa loo ci amee mu lew la naka noonu xam-xam ñi rëdd kër yi di rëdd plan yi di rëdd bâtiment yi di peese la ca war a dem ci ciment ak béton fer loolu te métier la waaye métier la moo xam ne it léeg-léeg léeg xaq yañ ko war a jox buñ ko ko joxut bâtiment bi nga tabax day daanu wala jamono ngi ñëw mu def ko ndax sunum réew léeg-léeg nga ne waa ji sa fondement bi seize million la mu ne allahu akbar bari na ci moom lu muy bëgg nga defal ko ko ci huit million nga ñab ñabalal ko ko yow bi nga xam ne yaay ingénieur bi ñab ñabal loolu bis bu ci nit faatoo dangay bàkkaar ndax yaa yaa nangoo defal kii lim bëgg te defuloo ko li nga jàng yow nit day gëm xam-xamam waaw waxoon naa ci waxtaan yi weesu sunu gan gi nu dalaloon bërki démb te ni ko laa dalal ko mu tudd Situnkara dafa wax baat bu am solo comme moom professeur la li ma gëm ak li ma xam nit ki lim gëm te mooy bâtiment ak niñ koy defee su la jenn waay bëggee def loolu wuuteeg li nga xam bañal bañal waaye déedéet da nga koy fekk moom ca lam bëgg ñab-ñabalal ko ko mu dëkk dëkk ca lu mu dem dëkki feneen lu ko nit ñu jékki-jékki ñu ne bâtiment ba nee na ma bëx ah léegi ku ko def ingénieur bi nga xam ne moo nangul waa ji nga xam ne jàngut loolu tey miirub nogay bële ca mbar nogoy lu mu xam ci miir boo nekkoon ma fàkk teg ci mbir yi sax mu ne la ay ca mbokk yi beneen beneen métier ngoog am na métier mu tudd médecine mooy ñiy faj loolu ci métier métier la bokk métier faj métier mu fajit nit ki day jàng nu ñuy faje waaye am na beneen métier faj mu ne ci pénc mi moo xam ne waa ji da lay wax ne mën naa faj nangam nangamit mën naa koo faj nangamit mën naa koo faj yépp mu ne mën na koo faj te la koy def ndax ñoom ñépp li ñuy wax noonu la jar naa seet ministre bi yor wàllu wér gu moom lañ dénk suñu wér yaram gi képp koo xam ne kii seetaan nañu ba ñu ñu faj la faj mu dut noonu am lu la ca toppee ministre bi yor wàllu faj da ciy am part de responsabilité bu mag a mag te na ma baal maanaam ñuy wax ne mën naa faj par exemple man ma toog fii rek daal ne mbokk yi mën naa faj tànk biy métti nopp buy métti nag maa ci aay bët buy buy xasan nangam rek lu ne ma wax ko nit ñi commencé ñëw sama kër fëlëx may dagg ay ticket ah xam naa jar na seet ñi ko man ñu bàyyi leen ñu continuer di ko def loolu jarul publicité ñi ko mënut ñu jàpp seen loxo waaw en tout cas métier ngu moom tam moo xam ne ci métier wér-gu-yaram la war nañ cee bàyyi xel syndicat yi nekk foofa tamit ñu bàyyi xel ci ci ci ci loolu ndax mécc maa ngi xajam si ndax ku bëgg xaalis ñëwul ba demee ci rajo wu temps d'antenne fay ca peut-être deux cent mille dem toog di dagg say ticket ticket quatre mille tuuti ngay am rek sa deux cent mille génn waaw est-ce li ngay faj nun la yonent bi day alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee Madina lu ne lu dugal na ca loxoom sallallahu alayhi lu ne ba mu agsee ci fajkat yi daf leen a wooree ñoo daf leen a wooree ñoo ñoom ñépp képp koo xam ne fajkat nga ca Madina mu woo nga ñëw commencé nag di leen rappel ana cabinet nangam ñu ne ña nga ne lee ana ki leen jiite mi ngi nii kaay mu ñëw mu yéen nu ngeen di faje waaw nu ngeen di faje ku ne ko nun de dañuy mocc ah waaw nu ngeen di mocce mu ne ñun dañ naan saalali muhammad walali muhammad wili wili jaani wilantaani mor xu jaak paate ñoo àndoon paate yéeg mor xu ja wàcc jaan wàccel mu ne luy loolu ñu ko am ah, dañu la ñuy faje mu neen tege ci suuf yéen bu bu ma fi déggatee ngeen dangeen ngeen di faj rek wala mocc rek du baax ci yéen acca wutalu kayit mu wutu kayit mu dicté ko nu ñuy mocce waaw tabarakàllah daal di koy dicté nu ñuy mocce allahuma anta shaafi waaw shifaa an laa yuqaadiru saxaman acca jël leen na mokk dem leen faji dem leen léemu ji ana kabine sàngam ñoo ngi nii <laughs> mu ne waa ci ñëw leen yéen lu ngeen di def ñu ne dañu faj lu ngeen di faj ñu ne sunguf nu ngeen koy def <laughs> ñu wax ba àggal ak yéen boobu moom baax na boobu moom baax na mën ngeen continuer ana cabinet sàngam nun la ko toppee ba ñépp jeex la ca bokk lépp mu dindi ko la ca bokk mu bàyyi ko ca waa ma dina am jàmm ña doon faj am jàmm moom tam mu am jàmm noonu la ministre bi yor wàllu wér-gi-yaram war a def woo mboolem kuñ dégg na day faj ci réew mi dajal leen fële ca jam ñaajo ca centre Abdou Diouf ñoom ñépp ñu exposé même bu dee jël une semaine it ñu déglu leen bu ñu leen dégloo ñoom ñépp ñi ko jàng ci tubaab ña ko jàng ci arab waaw ñoom Cheikh Gueye Gandigal ñépp ñëw toog déglu gaa yi déglu gaa yi loo ko mooy nit mën naa nekk ci roq bi rek di def yi deme ni ko yooyu di gaañ nit ñi rek waaw nga dese ab gis ñu far na ko kamuus waaw seet <laughs> alaa kulli xaal mu ngi noonu am na ñoo xam ne métier mu tadris tadris mooy jàngale ñoom professeur Arfan ak ñi mel ni ñoom inspecteur Arfan du moins ak ñi mel ni ñoom tadris mooy jàngale jàngale it bu waa ji jóg rek bëgg ci wutum wut xaalis déedéet tadris dafa am aw yoon dafay am ay jumtukaay dafa am yóbbal ba koo jàngal mu xam koo jàngal mu xam waaye su fekkee ne ki ki dugg ci métier jàngale dafa bëgg a def bu dafa bëgg am rek lam cay amee mën naa ñàkk dagan ndax moom da mokk lu li muy def mbokk yi bind bi jeexut bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu àndu suñu jataay bi nga xam ne day am lundi di am mar bi jataay bi 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex ñu cay laajante laaj yi nga xam ne laaj ko ci kaw du yomb nu mbokk yu xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ xibaar yi tubaab